Barcelone mi fëlañ fëlañee équipe bi la di Valence loolee mi ngi ko def léegi match ba nag jeex na tàkk ñu sant leen gërëm leen siyaar leen ànd beeg Aladji Malick TV am na solo yàlla na jëm kanam ci information yu wérte wóor yi ngeen fi taataane ñu gërëm Catalan yi ak seeni supporters ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne ñi ngi koy amee ci bile YouTube ak TikTok bi nga xam ne ña ngi cey dàbbar ñi bu baax a baax waaye solos match bi nag Barcelone da doon recevoir te daanaka mu mel ni dafa jóge ci ab defet kon war naa am taxawaay bu am solo bu am taxawaay boobee nag am na ko bu baax a baax baax ci li nga xam ni mooy goney Valence yi ñu gis Lewandowski mu mel ni ab triplé la dugal waaye loolee danañ ci xam dara moom mii di Lewandowski ngeen gis bët yam dugal ratatat comme météras la mel ratatat ji def na effet moo tax ñetti bal la dugal ñu gis Lewandowski ginnaaw Fermin mi dugal ci ñaar fukki minutes ak ñaar moom mii di Lewandowski Roberto ñeent fukki minutes ak juróom-ñeent maanaam biñ footballee ba dil siwaat ci mi-temps bi teg ca ñeenti minutes sëngam mu rajaxe kaas yi juróom-ñett fukki minutes ak mu ñëwaat wan gars yi ni doublé a teg ci taabal gars yi naan ko doy naa Tondeville ndax match bi gagné nañ ko pare mu ñëw tollantiwaat ko ci juróom ñeen fukki minutes séngam foofee match ba daanaka dafay jeex a takk waaye Igudiro ak ki nga xam ne moo nekk euh, kii di Pépelu euh, moom mit ci côté Valence ñoom ñaar ñoo dugal seen i bit loolee lépp mi ngi doon ci première mi-temps bi vingt septième minute di ñaar fukki minutes ak juróom-ñaar ak fanweeri minute ak juróom-ñett loolee am solo bu baax a baax yeneen information ci kanam ñi ngi sàkk yow mii di door a ñëw ci seen bi nga abonné ndax abonnement boobee dana tax lépp luñ coppati nga mën koo am en temps réel